président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Fatou du nuyu auditeur auditrice su Rewmi FM toujours bekk pour man. Euh, di jokkoo ak ci rajo bi. Mbagnick hmm, Diop bokk nga ci ñiy teewal patronat bi ca comité de suivi bi ñu teg ngir mu saytu lépp lu ñuy doxal ci xeexum coronavirus bi déjà sa bokk ci boobu boobule comité euh, naka nga ko jàngate ak xëy na lan la ñu mun a xaar ci taxawaay bi ngeen fa war a am. waa di ko rafetlu ba sama naataango yi xam euh, na ma pour ma dem euh, toogal foofu secteur privé bi yëpp ak patronat bi yëpp kooku dama si sant yàlla di leen gërëm aussi di aussi remercier président de la République bi nga xam ne moom moom si dugal aussi signé décret bi donc euh, la ma mën a fi ma mën ko def défendre entreprise yi parce que loolu moo tax ma toog fa pour tamit lépp loo xam ne décidé nañ ko si comité du suivi force Covid 19 bi mu mën a nekk loo xam ne dañ ko teg si yoon euh, ba nga xam ne daal ku si nekk di nga si gis sa bopp euh, euh, population bi dañ si gis seen bopp ñoo xam ne ne seen taxawaay demewul noonu ñu jàppale leen ñi nekk si koom bi aussi ñu fexe ba nga xam ne ne dañu fexe ba jàppale leen ñoom aussi. ñu mën a redémarrer ba nga xam ne activités yi daal du taxaw. alors comité boobu noo gisee taxawaay bi ndax ñu bëri jàpp nañu ne xëy na li ñuy def def nañu ko ba pare. waaw dëgg la euh, euh, bi mooy lu gënoon moo doon comité bi ñu taxuloon ko avant ñu doon commencé opération yi loolu daal moo doon idéal bi mais bon li am am na ba pare comité bi booy xool euh, dafa yaatu assemblée nationale mi ngi si. conseil économique social mi ngi si représentant état baa ngi si représentant aussi opposition baa ngi si euh, société civile a ngi si secteur privé mi ngi si et cetera donc ku si nekk daal euh, euh, boole na la si secteur yëpp force vive de la nation ñun nag suñu taxawaay mooy loo xam ne moom la ñu décidé moom la mm. ñuy wax ba ne dërëm bi war na dem ba yegg si si faatu dañ fexe ba dërëm boobu yegg si faatu ñu xam ne ne kat dërëm bi ñu génnee amal na ñenn faatu. Mm. parce que loolu la ñun comité de suivi la mooy lépp loo xam ne ne opérationnalité la si euh, budget boo xam ne moom la ñu jagleel pour jàppale entreprise yi jàppale population bi luñ si war ak lu ñu wax ne moom lañ ciy def ñu fexe ba def ko si mu bañ a am dara benn jikki jàkk donc loolu mooy suñu rôle ci biir euh, comité boobu ñu ñaan yàlla mu jàppale ñëw ñaan yàlla aussi euh, euh, yaakaar bañ a tas lépp loo xam ne war nañ si mën def ñu def ko. noo gisee plan bi nguur gi taxawal ngir taxawu koom-koomu réew mi muy plan de résilience bi. waaw plan de résilience bi nguur gi lu mu mën mu ngi koy def mais xam nga entreprise yi bari dañu xam am tuuti déception parce que premier discours bi dañu waxoon ne dañuy soutenir. sous forme de aide mooy jàppale entreprise yi noonu jox leen xaalis pour ñu bañ a tëj parce que fu mu nekk ni comme bi euh, mouvement yi activités yi wàññeeku na mais bu ñu demee ba si biir bon këyit bi ñu jox si ministère des finance mooy jàppale bi dootul jàppale mais bor la bor boo xam ne dañ koy fay fii ak at wala entre juróom benn weer ak at ak benn taux d' boo xam ne ne trois cinq pour cent la taux d' bi moom bariwul wante nag ñu bari seen yaakaar ci tas parce que ñu foogoon ne da leen di jàppale. Mm. aide aide ak prêt du benn. Mm-hmm. waaw mais comme euh, état bi loolu la décidé jaare la ko ci banque yi entreprise bu nekk banque bi nga domicilier nga mën fa dem ak say besoin moo tax am na ay formulaire yu état bi yónnee woon entreprise yëpp remplir ko léegi nag entreprise bu nekk sa banque ngay dem pour banque bi mën la. abal xaalis bu lay permettre nga continuer say activité ñu bàyyi la nga souffler nooyi tuuti ba fii ak at nga doog ko rembourser mais am na ci ñu bari ñoo xam ne nag xaaruñu ko woon noonu gisee buñ ko woon noonu donc loolu mooy euh, don bu bees bi mais il faut ñu intégrer ko parce que comme bi il faut que mu démarrer waat sinon Euh, bu économie bi taxawee moom mooy raw sa Covid 19. Hmm. parce que kenn dootu dundati. Hmm. dara mëntuñ ko def. Hmm. parce que comme moom moo yore moom moo yore réew. loolu mbetteel lay nekk euh, ci entreprise yi comme ni nga ko waxee ñu bëri xaar ñu ko woon lan nga gis ne xëy na mun nañ ko def ngir gën a jàppale entreprise yi ndax bu coronavirus bi weesoo aussi njort nañu ne situation bi dina métti. ah loolu moom euh, képp ku yore entreprise ku yorewul entreprise sax gis loolu. Euh, bu corona bi passé xam naa ne dinañ dem ci diggante ñetti weer juróom benn weer ba at pour situation bi mën a delluwaat comme lu mu meloon avant euh, corona bi entreprise yi euh, bu nu sañoon mooy état bi dina leen jàpp ba a hauteur de soixante soixante dix pour cent ci charge fixe yi parce que charge yi ñoom ñoo bari loolu mooy idéal bi mais tey peut-être état bi mënu ko comme li ma la ko waxee ci nasaraan mais il faut impérativement que ñu relancer économie bi pour machine bi redémarrer waat employé ñu sauvegarder ko koom-koom bi mën a tourner ñu mën a am xaalis mën na investir ba croissance bi mën a delluwaat machine bi yëpp mën a demaat mais loolu moom du yëfu tey ak suba euh, ay weer yi weer la parce que impact bi dafa rëy euh, tey euh, Covid 19 bi dafa jaxase àddina jaxase économie monde bi yëpp lépp loo xam ne moom la ñu gëmoon. Covid bi wan na ne loolu amul. Hmm. ba nga xam ne ne li ñuy wax beneen ordre mondial bu bees moom lañu nar a taxawal moo tax may wax na ne suñu dirigeant africain ci la wala profito ba nga xam ne dañu am beneen taxawaay ak beneen gis-gis ma nga xam ne ne lii dal ñu ñoo xam ne ñu dépendre trop ci institutions financières yi bañ ñu daal bu subaa wala suñu doom yeeg suñu sët yi am beneen gis-gis bu bokkul ak lu ñuy doxalee depuis presque quarante ans cinquante ans. loolu mooy ñuy indi ci bor bi nga xam ni Afrique ameel na ko bitim réew muy lu président Sall bëggoon ñu annuler ko waaye finalement dañu ko dàq it ñeel pay gi noo jàngatee dàq googu ak itam xëy na nan la ñu mun a def Afrique rawatina ak Sénégal ba dagg buum boobu nga xam ni moo ñu noot ak nasaraan yi muy bor bi. waaw moom laa doon wax léegi rek parce que nasaraan yi. institution internationale muy FMI muy Banque mondiale muy même euh, ay Union européenne euh, euh, surtout FMI ak Banque mondiale ñoom lu leen di arranger mooy toujours benn bord seen diggante ak pays africain so loolu moom arrangé wuñu tey gis nga bu ñu bëggee dajale mille milliards bi président laajtee nañu annulé bor bi dañ ko daxaat rek pour permettre que mu am xaalis bu mu soxla mais bor baa suñu loos g aussi bu leen président sollicité aussi waxuñu lu leer ba nga xam ne ne booy xool li nga ne ñoom lu arrangé toujours mooy ñu am benn bor africain yi yore leen ay bor ñoom ñu mën a continuer di émission wu di dugg suñu ay politique bu koom-koom loolu moom euh, il faut que mu dakk léegi nag moment bi lañ si mën a profité comme yëpp jaxasoo na euh, suñu chef d'état yi je crois que ñu ngi si liggéey ñoom ñoo mën a fexe ba loolu mu changé ba ñoom ñu am seen autonomie booy xool tey muy France muy Amérique muy Allemagne fu si nekk lu ñuy wax planche à billets dañuy génne tiré billets yu bari bari bari bari bari tey ay centaines de milliards d'euros ay centaines de milliards euh, dollars la ñu génnee pour faire face à la crise mais ñun Afrique mënuñu ko mënuñu ko BCEAO mënul def loolu ba nga xam ne nag moo tax dañuy fatt rek dañu tànc loolu moom dafa nekk liggéey boo xam ne ne suñu dirigeants yi dañ si war liggéey profité si crise bi fexe ba imposé ñu am beneen gis-gis ak beneen démarche ba xam dañu am sur benn autonomie euh, financière ak économique ba nga xam ne lii dootuñu dalati parce que lii moom leçon la gis nañu ne que suñu koom-koom yëpp muy dépense pratiquement si bitim mooy doon laaj bu mujj bi tolluwaayu coronavirus ci Sénégal ban jàngat nga ci def ak itam euh, ni nuy euh, gérer feebar bi euh, ñoom way kër docteur yi ndax dal na sa xel. waaw docteur yi ñoom li ñuy def lu ñu mën état bi aussi ñu ngi def lu ñu mën wante ñun ñoo war a yar suñu bopp rek ñun sénégalais parce que da ngay booy xool dafa am ñoo xam ne ne gisuñu gravité. Euh, pandémie alors que feebar bu doy waar la. Euh, depuis quelques jours ou quelques semaines yaa gis day gën a yokk rek euh, surtout cas communautaire yi. cas communautaire yi loo ko mën a dakkal mooy ku si nekk ngay protéger la bopp di protéger tamit sa vis-à-vis mooy di set di raxas sa loxo di si def gel di yore sa masque di créer distanciation ba nga xam ne ne yow ak ki ngay waxal ak ki ngay nekkal dina am tuuti distance ba pare. éviter regroupement yi mais ñun Sénégal des fois da ngay xool ay vidéo wala nga xool yenn yi da nga naan mais est que ñun ñii xam nañu ne feebar bi dafa doy waar yaa ngi am na ay gente ba léegi c'est alors que c'est interdit yaa ngi takk yi yaa ngi gis marché yi des fois si yaram dafay daw sax da ngay tiit da nga naan est ñun ñun on est conscient lu ñuy dund donc loolu nag pour man suñu professeurs yi suñu docteurs yi euh, en dehors de chaque euh, matin dix heures ñu joxe ka contact yeeg ak yooyu ak ñi génn àddina ñi feebar ñi tane dañu war a gën a dugg ci média bi di gën a sensibiliser population bi parce que sensibilisation peut-être dafa des parce que boo gisee lu population bi doxalee da nga naan kat ñi ne sont pas sensibilisés euh, autant euh, leader d'opinion yi aussi ñu ngi si ñu ngi def seen waar mais dañ ko war a gën a continuer di gën a sensibiliser ku si nekk rek ku la jege sensibiliser ko xamal na ko feebar bi dafa doy waar mun na laal ku nekk euh, ku amul xaalis ak ku am xaalis ak ku am doole ku ñàkk doole ku nekk ndaw ku nekk mag ku màgget ak yëpp ku nekk mun na ko daal donc lu ko mën a waaw lu ko bàyyiwul kenn waaw loo ko mën mentu daal mooy di set di protéger wu di mentu fu am ay attroupement ba pare di def loolu la digal di xool loo xam ne ne da ko war a mentu et puis ba pare koo mën a conseiller tamit nga conseiller ko sensibiliser ko ba yàlla génn ñu ci Covid bi jaxase na àddina jaxase na ñun fii jaxase na koom-koom bi jaxase na lépp de ñun ñoo mën a fexe ba góor góorgóorlu fexe daal ba lu mu gënee wàññeeku mu wàññeeku ba dem demal boppam nag ku ci nekk mun delluwaat ci liggéey ku si nekk delluwaat ci sa koom-koom mhm. nekk mën delluwaat ci li ngay def mhm. c'est important mhm. jërëjëf monsieur le président Mbagnick Diop amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi fàttali ni yow yaay njiital MEDES bokk nga itam euh, ci ñuy teewal patronat bi ci euh, comité de suivi force covid 19 ñu ngi lay gërëm Fatou maa ngi lay remercier tey moom awma benn jot moo tax Euh, peut-être concentration bi des na tuuti. parce que je suis sollicité de partout bañ a nangul euh, interview moo tax mais maa ngi di nuyu mm-hmm. di la féliciter di la encourager di encourager aussi cette équipe yëpp di wax ne à très bientôt ba pare di wat ñaan fi yéen aussi mm-hmm. ba lii ñu nu sas yàlla defal ñu ci ndam ak defal ko Sénégal yëpp ba ñu génn malgré que temps bi xat na waaye wax ji euh, leer na macha allah euh, conseil itam am na solo jërëjëf président Mbagnick Diop merci Fatou